mbokki internet crono actu dal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko doore ak coowal passeport diplomatique ñuy tudd kii di Diadji Condé mi nga xamante ni itam def cee tuddaale Boubacar Biaye ak mamadu sal di ay député yafar ci benn Bokk Yaakaar ñaar fukki fan ak benn ci weerum décembre ñu fas yéene jano ak attekat ba waaye nag ci semaine bi ñu génn ñii di waa division des investigations criminelles daal nañu teg itam loxo ci kaw ñaar ci ay agent yuy liggéey ci ministère affaires étrangères jëmale ko ci njuuj njaaj ci wàllum passeport diplomatique diplomatique ak yeneen ñetti doomi aadama yu ñu jàppee ay courtier ci boobu la mbir bu ñu sukkandiko nag ci libération ki nga xamante ne moom lañ jàpp ne moo jiite yëf ya di cerveau ba ab gendarme la bi amee ay birom ci biir palais de la république lu ni sax moo waral moom président Macky Sall daal di ci mer ba futu di sakku ci waa division des investigations criminelles ngir ñu ubbi ci ba l'enquête su ko defee lépp man cee leera wax ci jàmmaarloo yu ñu nemmeeku ci université wu Sénégal yi ginnaaw Bambey université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jàpp ko nag ni ki démb ak tey étudiants ya ña ngi fay jàmmaarloo ak ñii di waay takk der yi lu ñu mel itam la ñu daal di nemmeeku fale ci Saint-Louis ci université Gaston Berger étudiants yi daal nañuy génn bloqué nag ni ki tey jile dem dikk gi ci route nationale bi yooyu la étudiants nag lu ñuy sàkku moo di ñii di takk der yi génn ci biir université bu Bambey rax si dolli itam ñu ubbi ay lanket yu leer ngir ñu gindi leen ci anam nangoo génne àdduna foofule ci université bu Bambey ñu teewlu ci leeralu yenn ci ay étudiant université Cheikh Anta Ndakaaru dañu génnoon euh, jaamaloo ak takk euh, pour dénoncer li nga xam ne moo xew Bambey parce que mënuñu comprendre tey ay étudiants ne tey ñun defuñu dara lu dul génn li nga xam ne mooy seen droit benn recteur boo xam ne mu nekk nit ku irresponsable permettre ay policiers ñu dugg ci si biir campus boobu noonu jusqu'à même ñuy dugg ci chambre étudiant pour di leen jàpp loolu yaakaar naa nekk na loo xam ne ñun ñëpp bi loolu jàllee ñu toogaat ab diir ay étudiant dem ci restaurant ba lekki amee fa intoxication bi ñu amee intoxication nag yàlla dogal suñu benn camarade frère Badara Ndiaye da mujjee gaañu te ba fi si yàlla tey jii xamaguñu ci yan circonstance la deewee ci loolu la université yu Sénégal yëpp réunir Bambey daal di décider ci ñeenti poñ ne dañ cee soxla ay saafara et autorité yëpp ñi nga xam ne ñoo ci concerne a saafara yooyu noonu alerte bi na bëgg nañ kilifa yi nekk foofu ca université Alioune Diop bu Bambey sampat ni mu gën a gaawee amicalu étudiants yooyu ñu publier résultat autopsie leeral ñu ci ni nga xam ne suñu camarade bi ba dara Ndiaye ñu mën a xam ci yan anam la génnee àdduna bëgg nañ itam kilifa yi ñoom ñu ordonné à ce enquête sérieuse et digne de nom puisse être ouverte loolu la ñuy kaas te loolu ku ko dégg nga xam ne yéen na maanaam donc ñun buñ toogee ban ni autorité bi waxu ci defu ci dara donc dañuy jàpp ne am na luy luy ñuul ci sow boobu euh, quatrième point revendication yi suñ université yi chaque jour dañu nekk ci chantier te loolu du leen tere chaque année xam ngeen ne ñuy am bag nombre bi day gën a bëri orientation yi ci université publique léegi daanaka yóbbatuñ benn étudiant ci privé donc jàpp naa ne nag bu ñu indi ay nit faaw ñu defal leen ay matuwaay yoo xam ne nit ñi buñ ñëwee dinañ ci mën a nekk. wax ci Guy Marius Sagna mi coow topp ginnaaw buñ ko affecté fale ci Kédougou lu bees nag daal nay tabbi ci affectation bu ni mel ndax ci ay xibaar daal nañuy wax ni service biñ ko affecté foofu la ci Kédougou daanaka doxut ndaxte jàpp ko ci ñaari weer ci ginnaaw dañ ko daal di tëj li ko waral nag nee nañu lii di tax ma moo daal di màgget lool amul ngir bañ musiba daal di ci juddu moo waral ñu daal di koy tëj ci fàttali Abdoulaye Diouf Sarr joriñ bu ñu dënk wàllum wér-gu-yaram gi ak wàllum action sociale moo daal di génne ab note di xamle ni kii di Guy Marius Sagna daal di koy affecté ci service régional bu action sociale bu Kédougou coow lu rëy nag moo topp projet de luwa jëmale ko nag ci fexe ba ñu criminaliser wàllum homosexualité fii ci Sénégal kuréel yéen ci bitim réew daal nañ cee jot ba nag ñu tàmbali di ci wax niki ci ay yu mag yu mel ni CNN Washington Post ak yeneen ak yeneen daal nañ ci addu ñi nga xamante nag ñoom ñooy LGBT yi daal dinañuy yëglu di sakku nag ngir ñu fexe ba nga xamante ne bii la loi du mën a jàll fii ci Sénégal loi boobu nag ci ba fàttali Cheikh Bamba Dièye Moustapha Guirassy Mamadou Lamine Diallo tekki ak ñeneen ñoo ci ànd ak waa jàmmi réew mi bu ko yóbbu ci assemblée nationale ngir ñu daal di koy voté waaye nag yooyu ley député daal nañuy xamle ni nguur bu Sénégal jamono ji jile tembe mu ngay jot ab pression bu jéggi dayo mi bàyyeekoo ci bitim réew ngir ñu mën a rejeté loi bu ni mel l'observateur ne ñu mel na ni sax lu ni mel daal antu ndaxte te ji la ñu waroon a présenté projet de loi bi njiital assemblée nationale Moustapha Niass waaye dañ ko mujj reporté bii la loi nag bu jàllee ci assemblée nationale képp ki nga xamante ne daal nañ lay jàpp ci wàllum homosexualité di mbirum boromi ñaari tuur yi mënees nañ laa tëj kaso ci diir bu fukki at wax ci feebarum poliomyélite mi dellu siwaat ci Sénégal jàpp ko ci janvier 2021 feebar bi daal dinay dugg ci juróom-benn ci ay région fii ci Sénégal juróom-benn fukk ak ñaar ci ay cas lañ ci daal di lim région bu Jurbel la ëppee lu ni mel moo waral ñu fas yéene soobu ci ab campagne ngir ñàkk xale yi diggante fukki fan ak juróom-ñaar ba fukki fan ak juróomi ñeent lu tolloo ko ñaari millions yu tekk ci ay xale la ñu bëgg a ñàkk ci wàllum tàggat yaram confédération africaine de football CAF bu ñu moytuwul coupe d'Afrique des nation bi ñuy waajal fale ci Cameroun dinañ ko daal di niilal xibaar bi nag ñi waa RMC Sport ñoo ko daal di fësal nee nañu ay tàggatkat di ay entraîneur yu bëri daal nañu jot ci xibaar bu ni mel li ko sabab du lenn lu dul jàngoro mbasum Covid 19 gi ak bile variant bu bees bu ñuy tuddee Omicron waaye itam pression bi nga xamante ni ay club bu Angleterre daal koy teg ci waa CAF ci seen i ay joueurs ndar keppe ko ci bitim réew ñëw ci Gàmbi nag jàppale ni opposant bi la ñuy tuddee Ousseynou Dabo UDP moom nag dafa rek di dugal ab recours ci cour suprême nee na résultat yi tukkee ci élection présidentielle ñu fa doon amal ñeenti fan ci weerum décembre ay avocat parti am nag ñoo daal di dugal boobule recours ci fàttali élection local yooyu nag observateurs yi nga xamante ne ñoo nekkee foofule ci Gàmbi ak ñu bàyyi ko ci bitim réew ñoom ñëpp ñoo àndandoo ne daal nay jaar yoon te lépp a leer mois moo mujj toogaat si ñaareelu mandaam ginaa bu mu amee 53 pour cent Ousseynou Dabo moomee moo topp ci moom am 27 pour cent mbokku internetu Chrono Actu lii lañ la indiloon ci xibaar niki tey jile dig daje ëllëg lay doon incha allah bu soobee suñu borom jàmm ak jàmm.